dem ci commune ci biir département de Rufisque xam nañu tawat yi xam nañu lan la xam nañu ni nit ñi bëgg nañu lépp luy cadre de vie ñu amélioré ko fii lépp luy assainissement ñu amélioré ko fii xam nañu ni canal à ciel ouvert bi ñu fi am c'est une vieille revendication et ku nekk xam na ni question de salubrité de cadre de vie bu normal lañ posé fii ci département bi. Thiès est une très grande ville. ville bu ma la. il faut que Thiès redevienne la capitale du rail. de Thiès je veux desservir toutes les villes du Sénégal. à partir de Thiès, je veux aller jusqu'à Tambacounda. À partir de Thiès, je veux aller jusqu'à Diourbel, À partir de Thiès, je veux aller jusqu'à saint Je prends l'engagement comme ni mu amee ci dëkk yu bare comme Europe à partir d'ici ngeen am une gare comparable à toutes les gares yi ngeen xam en France et partout ailleurs. Je les collectivités l'éclairage public, le cadre de vie, l'assainissement, la réhabilitation aussi des industries. Le 24 xëy leen teel a xëy ngeen dem ci bureau de vote yi ngeen xàmme bulletin bi mooy bulletin bu jaune bi am lu weex li ak costume bu nice bi quoi. ngeen xàmme ko ngeen dem. dugal ko ci biir urne bu ko defee ngoon si ñu fêter la grande victoire fêter les premiers pas vers un développement inclusif les premiers pas vers un développement économique social durable les premiers pas vers la résolution de tous les maux de tous les problèmes